entre le gouvernement de la République du Sénégal et ses faux avocats de l'artisanat qui est le vrai partenaire du secteur de l'artisanat. Mon mi nga le ministre, Ministre jël ministère bi lépp ne l'artisanat, jël artisanat boole ko ak benn secteur koy tardel jël ministre compétent وخم ارتيزان بو خاري ما ديت كو ارتيزان موم اك ارتيزان كوت ني ليغي سي سيكتور بو خامل سيكتور بو ام سولو مو فك بيدجي ارتيزان مو نيك بيدجي بو بيريزوار بو خامل ما دي سك 3 مليار دو فرانس اي فا مون ديكو تاي انديكو تي بيدجي بي لا خامل كو يورمول da nga xarab waaye

yokk zone artisanale yi yokk li nga xam ne mooy les services financiers dans le secteur de l' artisanat ASAPEX li may wax xam na ko waaye APDA nii nga xam ne Pape Amady Ndao moo ko jiite ñu am agence spéciale pour la promotion et le développement de l' artisanat kii ñu fal ko defagul at si boppu artisanat mu wër Sénégal wër leen képp ñoo artisan yi waxtaan ak ñoom. dégg naa sax benn avocat mu ne stratégie nationale développement artisanal amul. ah ak tey maa ngi teeru bi nga convoqué fa artisan yi ñu ñëw heure nga waxtaan ak ñoom nas noo ba tey ñu am stratégie nationale développement de l'artisanat ma ne dañ leen bàyyi caaxaan séeréer nee na caaxaan faaxee wax leen dëgg Sénégal. tip artisanaux yi am mexe kii gis naa ko télévision moomam may ñun suñu akalaay taala la ñu wax ñun duñu ay comédien duñu ay théâtre kat projet yi ñu financé ci artisanat ministre bi xam na ko ADPME yi ñu financé ci artisanat ministre bi xam na ko Papa Amady Ndaw artisan wu Thiadiaye ak département de Mbour ku ko jiite tudd Pape Mbow mu ngi lay gërëm di la sant man kenn nettaliwuma ba nga fa ñëwee di waxtaan ak ñoom ci formation pour ànd ak ñoom pour capacité nit fa la ma fekk chambre de métier du am caajaay chambre de métier ci région lay am moo tax ma ne la xamoo artisanat xamuloo artisanat kon damaa bëgg nga noppi moo tax ñun madame la présidente budget artisanat bi xeeb nañu ko xeet nañ ko parce que bëgg nañu bu soobee yàlla déwén parce que débat d'orientation budgétaire dañuy fekkul monsieur le ministre place artisanat mënul gàpp tailleur plombier maçon ku menuisier métallique menuisier bois ah yooyu yëpp ba ci transporteur ñu def transport artisanal ak coiffeuse coiffeur bëgg naa ñu jàppale leen bu baax ci naka lañ di jàppale nag mooy fi ngeen teg seen tànk stratégie nationale développement boobu ngeen xam ne def nañ ko ci septembre 2022 monsieur le ministre des finances da la war a génne la ñu financé ko xam naa li tax budget bi toll bi parce que stratégie bi ñu ngi koy soog a nas validé nañ ko en atelier bu soobee wàlla déwén budget artisanat war naa dem 40 milliards Macky Sall nag moo ñu woo ci lii indi bool bi ci président boo xam ne ni day solu solu Sénégal ñëpp di ko gis bu sol mbaxana Sénégal solul mbaxana Nigéria solul mbaxana Niger naxul kenn kon ñu leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah La liste des orateurs Monsieur le ministre de l'Artisanat et de la Transformation, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Monsieur le ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, vous avez la parole. Assalam.